internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti tv tey nag di gaawu ñaar fukki fan ci weerum août atum 2022 nañ ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door foofee ci Touba gannaaw ba nga xam ne lii dip soble moo daal yokku bu yokk bu doy waar ndaxte nag ñaar fukk ak juróom kilogramme boobee doon jar ca 7000 francs yokku na ba fii lii dip 50 000 francs fi mu tollu teemee nag benn kilo soble ñetti jàpp ñeenti téeméer kile di njiit ci wàllub njënd ak jaay dina amal ab conférence wax ci li ni mel coow amatina ci diggante i média ak seen poste national bu sénégalais bi di RTS ginnaaw ba RTS amee ak yelleef pour tegal askanub Sénégal li ñuy wax exclusivité ci coupe du monde boobee war am foofee ca Qatar ci loolu nag la waa E-Media waxee ni yelleef yooyu waa RTS wax ni ñoom lañu ama ñoom it yor lañ ko te bëgguñu si nag benn problème li ni mel mi ngi xewee foofee ci Afrique du Sud di ab dëkk boo xam ne nag li ñuy euh, di xëy di ko am ci ay nit yuy faat euh, bakkan doy na waar dem sax nag ba dëkk boobee di am ci lu tollool cent dix meurtre ci benn fan Duudu Njaay Kumba Rose nekkoon fii ab tëggukat sabar bu ñu ràññee woon fii si Sénégal ak ci yenn réew rawatina nag fépp nag ci àdduna bi tey la am juróom ñetti at ci biir suuf moom nag bokk ci lii di UNESCO jagleel lii di dellëp njukkal làmb waneti na boppam ginnaaw ab combat bu ñu taxawal dox si diggante Bombardier ak Tapha na journal bi tey nag fësal na ni nag bile promoteur bu tëgg boobee komba du mën àttan lii dépp kase jëmale ko ca mbër yooyee coowal hôpital Dantec day daal di wéy gannaaw e, coow li juddu woon ci tëj te hôpital bile yenn ci ay malaat lañu toraxal génne leen ci bilépp hôpital di fàttali rek nag ñooñu ci malade yooyu dañoo sonnoon tepp soxla buloon lii di nga xam ne moo di dimbal ak taxawu ba sax ñenn ci ñoom jot nañu ñàkk bakkanam lii di nag ab tiis tey bu xëy dal ci askanub Sénégal nam si yàlla François Mancabou la ay awakaatam artu lii di cybersécurité ginnaaw ba ay famem jotee li ñuy wax ay menaces footballeur bu mag bi di Sadio Mané nag ak joueur foofee ca Bayern Munich nekk ab star mondial ci bile bépp club dem sax ba mayoom boobu muy sol bokk na ci supporter yi di gën a laajte jàngalekat bi nag ñu gën koo xam ci philosophe di wuyoo si turu si taxaw na tey xalab kii di Pape Djibril Fall ginnaaw ba mu bokkee woon ci listement boobee di serviteur nak moom nag si tey taxaw na xamle ni que Pape Djibril Fall mënul am sax ñaari député ndax li ni mel benn député bi serviteur yi am bettu ko wax lii wax la sa des waaye nag xibaar yi nag tey nak waxati ab drogue bu ndawu sénégalais yi jël di ci def naka sudul noonu sénégalais yi nag génn ñenn si ñoom di jëfandikoo ci anam bu doy waar li nga xam ni moo di volé fi mu toll tembe xale yi jël nañu ko te di si def lu doy waar ci biir dëkk bi xibaar yi nag tey dañ ko ndar kelpe ak rëccëp kaso bu Pape Mamadou Seck gannaaw ba ko police tegee ba loxo ba amaloon lii di film de reconstruction des faits mbokki internet seen acti tv tey nag li leen leen indi loon si li gën a fës xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg wax leen rek woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyer ci cloche pour di am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen information fii seen chaîne euh, fii seen chaîne YouTube SENactu TV la seen au cœur de l'information